Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Pour la énième fois, Barakallahu Fik à l'association Andivei, pour l'engagement qu'ils ont euh, au Sénégal euh, pour euh, le soulagement des populations dans leur vie difficile. C'est pas la première fois qu'ils que vous financez quelque chose pour les populations démunies et ils vous en sont très reconnaissants parce que des villages aussi reculés qui n'avaient pas accès à l'eau,

pour mën a jàppalante ak seen ay mbokk wala jàppalante sax ak seen ay mbokk doomu aadama kon ñoom seen yëg-yëg mooy euh, naka la ñuy def pour mën a dajale seen ay dërëm jéem a xool ci gox yi ñan ñoo ñi nga xam ne ñu nekk ay jafe-jafe ñëw maanaam jàppale leen ci leen yàlla wërsëgal. alhamdulilah rabbil alamin nu sant yàlla bu wér ndax ñëwoon ngeen fi tàmbali nu teen bi waaw. ba liggéey bi yàgg nii. amuñu seen pay yàlla mi am pay nag moo leen mën a fay. waaw yàlla mi am pay moom moo leen mën a fay waaye nun amul seen pay cant gi moom am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem ndax sun xol daa sedd guyi daa sedd guyi guyi góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci tund bi ñëpp it seen xol sedd na waaw ndax lii soxla woon nan ko te mënuñu koo def keneen nit nu koo defal sunu dëkkandoo itam am na ci bërëb yoo xam ne fii la ñuy si ndax Jala gii de ñooy suñuy dëkkandoo te ñu ngi nii ba juróomi kilomètre la suñu diggante ñoom fii la ñuy te si teen yi nag moom yàlla dogal na moom neex na bënn na yàlla mën a taxaw ak ñi ngeen jàppanteel ne leen leen yàlla boole taxaw moom ki mën a taxaw nga xam ku taxaw rek nga am ku la taxaw yàlla leen taxaw te musal leen ci am ndog musal leen ci cat musal leen ci musiba ak balaa. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen masawa ci wax dëgg yalla sant nañ leen lol gërëm nañ leen ndaxte coono bu rëy ngeen ñu fekkon ngeen dindi nit kon nak sant nañ leen suñu gune yi nak bëgg nañ at école buñ leen jangal soxla nañ ko su ngeen ko mané ngeen ñu ci dimbal ngeen ñu ci may. seen be wañu suñu coono mom ndax mi moom neex rek la def neex na mom kana root rek di tok gaga fo ka lepp kay moom ci lañ koy def moom lol kay ci lañ ñuy def lepp moom.

et mettre de la baraka dans vos familles, euh, dans vos biens et que notre collaboration euh, puisse encore euh, durer très très très longtemps. Inch'Allah, à bientôt pour d'autres projets, réalisations de puits, dons aux populations et tout ce qui va avec. au Fikou, une mention spéciale au frère Ismail parce que franchement, moi je suis très très très très content de venir aujourd'hui pour faire cette inauguration parce que pour vous avoir rencontré. Là, on a devant nous un homme de valeur. Et ça, ça compte. Ce n'est pas, pas en fait ce que vous donnez euh, matériellement, mais l'humain. Ça ça, ça, ça, nous, ça touche vraiment. Et Inch'Allah, on sera toujours à vos côtés pour euh, mener à bien tous vos projets, Inch'Allah. Salam alaikum wa wa